leen jot a gis moo di jëmmi kurus ci boppam mënunoo wax ne biddaa la waaye dafa lënkaloo ak biddaa li tax nit ki du ko def ay mbir la jullit maanaam nit ki jàpp ci sunna te ca góorgóorlu li tax yor kurus ci boppam mu war koo wattandiku ay mbir la ba ca njëkk moo di jëmmi kurus ci boppam dafa siiwee ci jeneen diine door a ñëw ci diine lislaam ibnul haj ci téere bu ñëw al madkhal muy borom xam-xam bu mag ci ngirum imam malik neena labbe yi nasaran yi nga xam ne ñoo nekkoon andalus muy fi ñox espagne tay te dëkkaloo won faak lenn ci ay julit ñoom ñoo daan jël ay kurus diko ko diko di ci seeni baat diko ngab diko di ko yor suñuy dox julit yi ya foko gis ko roy leen ci kon dañuy xam ci jëreen diine la joge ñew ci julit yi roy leen ci bam ak ci ñoom kon benn bobu warna tax nit ci dem ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi di nuyu di leen ziara bu baax docteur Ahmed loo nag <clears throat> laajoon nañ ko ca fan yële lu jëm ci wàllu kurus ba mu am lum ci fatta ci huit minit ba ñun ñu defoon ci ay tontu ay xalakaat yu xaw a takku. ci waxu albani jooju ci silsilatu ahadis daifa ak yu mel noonu ak fii léegi ware ne xadis bi kenn mënu koo jam waxoon nañ ci lu bari waaye nag jotuñu woon tontu bu baax ci lim wax ci madxal donte madxal nag digganteem ak Ahmed Lo war nañ cee def benn jotaay boo xam ne spécial maanaam madxal ak Ahmed Lo ndax day jël koo xam ne bu amee fukki wax te mooy borom madaxal bu fekkee lim mu wax lépp fukki wax la benn wax bi la ànd ak Ahmed Lo wala boog benn wax bi la Ahmed Lo nangu ne ñoom ñaar ñoo ca ànd yeneen yépp lu Ahmed Lo di dàq lay saxal moom borom madaxal kon <clears throat> warees naa amal jotaay pour wane ne ñoom ñaar bokkuñ dara boo déggee lu mu wax ne madaxal nee na. te ñaari mbir rek la ko soxlaa mooy araamal kurus ak araamal gàmmu te boroom ma daxal defu ci benn waaye li ñu soxal fii ci wax bi mooy lim wax nii ci tontu bi te waxoon na ko itam ca tontu bële ca mai deux mille deux deux mille vingt deux tey nag ci novembre deux mille vingt deux itam même dafa répété waat même wax bi mooy. borom madxal te mooy ibnul xaaj wax na ci téeréem bi ñuy wax madxal ne e, jullit ñi mosuñu xam kurus lu dul biñ demee andalus si lañ gis làbbe yi ñu koy wékkoo seen baat yeeg yu mel noonu <coughs> alhamdulilah ñu leen di toppandoo ba farloon noonu la duggee ci jullit ñi ma ne loola mu wax su fekkoon dëgg la bindkat yi ñoo koy njëkk a bind ndax am nañu bind di wër fu ñuy jokkalee roy gi ko jullit ñu roy fan lañ ko royee ban diine la tuumaal nañ jullit ñi ne da am diine duñ ko jëlee waaye xamuñu fenn fuñ ko mën a jokkalee xam nga bu ñu amoon wax ji moom dañuy mën a dem directement rek daan ne eh, eh, xal nee na jullit ñi ngi ko jëlee ci nasaraan si waaye xataa ñi tuumaal jullit ñi daa am fuñ ko jëlee xamuñu fan la. mun ñu ko définir ne barab sàngam lañ ko jële moom Ahmed Lo ci mën a liiram nag mu ne boo demee ci madaxal da nga fekk mu nettali lii mu nettali nii dinaa dugal madaxal définir bépp wahabi bu mën a génne loolu ci biir madaxal bi tàmbalee ko ci Ahmed Lo ba ci suuf waaw fu borom madaxal waxee ne jullit ñi ci nasaraan si lañ royee kurus ak nim ko nettalee nii ci ban page ak ban wax kenn ku ko mën a génne ci àdduna waaw ah, maa ngi ciy xaar wahabi yun yëpp nag ñu defaan seen sëriñ wane ne li wax dëgg la ñu ne mi ngi nii wax jaa ngi nii ci madxal